ahlan bikum njiiti réew mi Macky Sall fa ñaawlu jëfu terroriste yi xam Sénégal rawatina bis bi nga xam ne fañ koo taxal taxam ñu fa newoon ba ñaar faatu ca laas yéene kaay ñu ko xamal Le Soleil yéene kaay na njiiti mi kay fa dalal xel yi ne ñooñu fañ leen di wër buñ leen gisee def li war ci ñoom laas yéene kaay na ko ñax ma ay gaañu gaañ ca bis ba fi mu toll xam nañ leen waaye ña ca faatu nag moom kenn xamagul leen maanaam seen tur yaak yi ni mel Vox Populi na ak ne procureur fa xoote képp ko am xibaar ci ñu jëf ñaawteef bi ni mel nga dimbale leen ci baaxe leen ko ah, yow fa ngay xool ginnaaw attentat ba amoon ca bis ba ca yaraax am na ñetti tataa yoo na fañ leen a taxal ca diwaanu Thiès ba tey Vox Populi moo ñu ko xamal ña def ñaawteef bi ni mel nag fa ñëw muur seen xar-xaram ya ba pare yëg ci Jakarta gouverneur bu diwaanu Thiès mu ngay tëkku ne danañ jël ay matuwaay yu saf sàpp ci li ni mel bés bi yéene kaay fi mu toll nii kay Sénégal ñaxtu yi taxal yeeg lakk yi réew mi yëf yi daal fa sàmbaraa fi mu toll nii xam na sax ab camion boo xam ne fañ ko taal ca yaraax diwaanu Ziguinchor moom fi mu toll nii farandooru Sonko ya fi mu toll nii ñoo teg loxo dëkk ba fépp la ñu yëngal boole ko lépp nag kenn du dugg kenn du génn laas yéen kaay na diwaanu Thiès kay fa ñoo rëcc ci doxalin bu garaaw bu fa naroon a xam l'observateur na ko faay dëggal li nga wax ah, yaaw fa ngay xool fa xam juróom-ñeenti nit ñoo xam ne fañ leen a jàpp bokk na ca ab jàngalekatu université ñoom fa ñoo bëggoon a dem song courant ba nekk ca Malicounda ak tribunal naka noonu marché central bu Mbour mu toll nii nag askan wi fa ñoo ragal njàqare ci dugg ci biis a kaay bi ñu songo woon ca yaraax dañ ne wàllu terroriste yi la xam na ay mbir yu ca lëndëm yaaw seetal ña nga xam ne ñoo mucc te nekkoon ca bis ba ba kenn gisul leen ñaar ña ñu wax ne fa ñoo faatu ca biis ba seeni niiw ba léegi kenn gisul ko réew mi yéen kaay na lakk goog ci bis bi kay fa mel ne fayagut de ndax sénégalais yu bëri daal seen xel fe cee teey ak fa xam laaj yoo xam ne ñi ngi koy laaj ci mbiru biis ba ba léegi xamul tontu lii yéen kaay na xëy faa leen di wax liy dëgg ci mbiru boobu yaaw seetal chauffeur ba ko doon dawal Abdoulaye Diop la tudd 2010 ba léegi foofu lay dawal li ligne 65 bi te moom mës ta nekk policier juróom ña ca amoon gaañu-gaañu tamit xam na ca xale boo xam ne fukkaat ak benn la xam ak yeneen ñaar ñoo xam ne hôpital Pikine lañ leen yóbbu kon kay yëf leer na te mooy yéene kaay na ko ah ah yëf kay mbiru bis boobu ba léegi xam na lu ca lëndëm de faa lay laaj ñaar ñooñu faatu ca fan lañ dëkk ci Sénégal ak nuñ tudd kenn fa koo xam ña ca am gaañu-gaañu fan lañ dëkk nuñ tudd kenn gisul leen ak témoin na ñoo xam ne lañ wax xel mënu koo nangu Sud Quotidien mënta waaye bis bi kalaate coow fa cee bëri de ndax la Antoine Diome wax ci wàllu terroriste yi ñoo ko def sénégalais bëri fañ koo gëmut donte chauffeur ba weddi ne moom mësta nekk policier photo bi ñu wane ci internet bi nag commissaire Cheikh Dramé la enquête yéen ne pour mu gën a leer directeur hôpital dalal jàmm ñun fañ ko xoo téléphone mu ne dëgg la ñaari niiw ña fa faatu yóbbu nañ ko seen hôpital ba vie savané ne ak lu ci mënti doon taal biis ak song dangaa muur sa xar-xaram yi ba pare yore cocktail molotov xam nañ sañ-sañ tiire <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne avocat Ousmane Sonko bi tubaab ba réewum France fa ko porté woon plainte waaye plainte ba fi mu toll ni fañ koo classé maanaam seppi nañ ko sànni fële lii yéene kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'évidence yéene kaay mooy ne Ousmane Sonko wér-gi-yaramam fi mu ni fa doy waar ca kaso gam nekk maanaam grève de la faim a lekk gi nga xam ne ko Sonko na gis nga kaso googu mu nekk fi mu toll fa ñoo yokk kaaraange ga turbine yéen kaay na ko waaye moom néeg ba mu nekk xam na lal douche set na source a man faa xamut lan moo tax El Malick Biram Souley Abbas Fall bi ñu jàppee Sonko ba léegi fa ñoo mel ni ñu muuma fa ñoo noppi de libération mel ni ku naan ko ñoo yey noppi de ndax ba léegi jàpp gi nga xam ne ñu ngi koy jàpp responsable yi yi fa continuer yaaw fa ngay xool may mun a jéey ko loxo naka noonu maire Parcelles Jamil Sané Ben Taleb Sow Toussaint Manga ñoom it Pastef ñu ngi ci loxoy yoon yéen kaay bi ne ginnaaw bu ñu dakkalee internet bi ci téléphone yi TikTok fi toll nii état bi fa ko dakkal bés bi yéen kaay ne ñaari maire yooyu bu Padoa ak Parcelles fañ leen di toppee tuuma na fa ñuy financé jox xaalis booy yi ñaxtu vox populi ne may mun a jéey moom ma ngay artu wàllu wér-gi-yaramam nee na lépp lu ko dal lu ji njaaga ñuy tëra Macky Sall mooy njaag <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne njiitëram Macky Sall tey ci ngoon ñu a nekk moo leen doon déglu tey ca pale ba yéene kaay bi na ndaje mi tey fa nar a am solo ci kan la Macky di tànn info yéene kaay na ko njaboot ak fay maanaam ñoom sox dame soxna mag ak Mansour Faye ak ñoom ñooñu Amadou Mame Diop moom lañ bëgg njiitu réew mu def ko candidat benn bokk yaakaar exclusif yéene kaay dëggal ko na njabootu fay gi ne nañ Macky ñun njiital assemblée lañ soxla mu wutu la yéene kaay bi na Mimi Touré nag fa mel ni mi ngi leen bëgg a yey de waaye info yéene kaay xam ne xaajuñ bay d'accord ci Amadou Mame bu ko Macky jiitalee ñoom fa ñuy génn bàyyi uti seen candidature boobu ndax fa ñoo jàpp ne benn bokk yaakaar buñ jiitalee Amadou Mame Diop loolu mooy ne fañuy xaru ndax fañ leen di mbuqi am ah moom ñi ko xam ci Sénégal bëriwut di ba tey yéene kaay bi ne kon Amadou Ba ay Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye yi ñu doon wax ni yëpp ndeke fañ doon nax gaañe pour bañ ñu xam ki makki bëgg tànn ndax du kenn ci ñoom ñooñu le quotidien yéene kaay mel ni ku naan ñi sant fay fa mel ni liñ bëgg moom lañ jiitale Macky Sall di def de la nar a def ñoom député yu assemblée a andil ci tey le mandat yéen a kaay na man fay laajte fi ñu jaar ba tax ñu mën a bokkaat ci politique ñoom ñaar ñooñu Karim ak Khalifa Sall buntu bu ubbeeku la ci wàllu politique wala boog fa ñoo war libération moom fa ñoo xamal ne neen tuuti bu jigéen ba faatu woon ca hôpital Abbas Ndaw ginnaaw bu ñu ko dugalee ca machine ba nga xam ne mooy fóot xam na ñett ñoo xam ne teg nañ leen ci loxo wàllu càggante ak ñàkk a bàyyi xel ca seen liggéey moo tax neen na tuuti bi li ko dal dal ko fa ngay xool xam na ci koo xam ne fa jël yére ya boole ko neen na bi laxas ko dugal ko ci biir machine bi